ça ne nécessite étude ni apprentissage. Mhm. donc pour l'honneur de la démocratie sénégalaise nañoo xam ne lii du mbirum Ousmane Sonko. Mhm. du mbirum Pastef du mbirum parti politique lii question d'enjeu national la. Mhm. parce que pour man si un système peut réussir écarter deux candidats 2019 nga ñëwaat 2024 écarter waat ki nga xamante ne leer na la ni. Euh, euh, les les statistiques lui sont favorables. Mm-hmm. mais loolu bu jàllee yoonu tool lay doon deux mille trente quatre euh, deux mille vingt neuf lii leen nuy waxaat. Mm-hmm. deux mille trente quatre lii leen nuy mm-hmm. lii leen nuy donc il faut que ñu joxe un coup de frein. boobaa kay dañu di république tegee ko fële wax monarchie rek. exact gis nga en 1981 Kéba moo doon installé le premier le le président Abdou Diouf. Euh, en sa qualité de premier président de la cour suprême discours am boobu noonu li ci ñëpp retenir mooy dafa jàkkaarloog le président ne ko les sénégalais sont fatigués. Mhm. mais en vérité il avait di autre chose qui mérite d'être rappelée. situation bu critique bi ñu doon dund à l'époque il dit je le cite l'essentiel était de sortir de cette situation avec courage en sauvegardant l'intégrité de notre territoire l'intangibilité de notre constitution et les luttes démocratiques de nos peuples Ceci ne peut être l'affaire d'une seule personne, ni l'affaire d'un parti politique. C'est le devoir de tous les citoyens de se ceindre les reins, oublier les vrais cœurs pour l'intérêt exclusif de la nation. Fin de citation. Alors, il nous reste trois minutes. loolu pa euh, Keba yal na ko suñu borom xare àjjana wax. mu bàyyi leen nga tënk ko ci kàllaamay kocc. maanaam fi ñu tolloon parce que 1981 danoo am président boo xamante ne ñu ko modifier article euh, constitution lañ def teg ko ci bopp réew kon tripatouillage constitution kay. nekkul lu bees. bon saa yi dafa jël Abdou Diouf dafa soppi article trente cinq ne léegi président bu démissionné premier ministre moo yeggali mandat bi jël Abdou Diouf ko premier ministre ba pare moom démissionné Abdou Diouf ñëw toog donc euh, situation euh, de précarité yooyu noonu yàgg na fi. Mhm. surtout constitutionnel. Kéba Mbaye ne ko lii nag situation yii nii. du mbirum benn parti politique du mbirum benn nit. Mhm. sénégalais yëpp ñëw war a booloo doonub say. pour mën a taxaw ci situation bii nii. Mhm. ni mu waxee woon répété ko dans son discours inaugural à l'UCAD en 2005 ça mérite d'être redit aujourd'hui kon dafa mel ni Sénégal puusul paasul. kon bu ñu foog ni jaay doole bi ñuy jaay doole. Sonko Sonko lañ koy def. mais bu ñu toogee seetaan ko. ñun ñii suñu bopp ëllëg kuñ ko def. boo justement moo tax mu war a dakk une bonne fois pour toutes dafa war a dakk tey li ko war a dakkal. Mhm. sénégalais yi nga xamante au nom de qui la justice est rendue. Mhm. ñoom la ñuy euh, wax ne yow la ñuy rendre justice bi à son nom tey nii ak lépp lu mën a génn cour suprême. Mhm. turu Khady Sida lañ ko wax. Mhm. internet yi may seetaan nii loolu bien sûr donc jàpp naa ne lu ñuy wax ci sa tur. war nga ci jël ses responsabilités. moo tax a chaque fois bu ma gisee euh, toutes ces arrestations la du ma mën a toog je me démarque. parce que ba ñu arrêté Imam Ndao ndeysaan ba ca mujj Aliou Sané démb. Aliou Sané euh, saa yi. ci lan lañ jàppee loolu sax. participation à une manifestation noonu autorisée bi ñu koy jàppee yaa koy gis te vidéo bi. gis naa vidéo euh, mel ni ku ñu bëgg ku ñu bëgg a humilier. waaw foofu da nga gis manifestation. ana ma moo jaxal manifestation boobu laa fi gisul. <laughs> mais Pape Abdoulaye Touré manifestation lañ ko wax te fañ ko jàppee amul manifestation mais comment naka nga mën a participer à une soirée qui n'existe pas quoi. Khady là on va à une soirée mais soirée existé amul. mais n'empêche naa la jàpp. mais comme Déthié Fall bu ñu koy jàpp siège manifestation ba nekkoon euh, Obélisque ñu jàpp ji Ahmed Aïdara Guédiawaye mais loolu loolu boo toogee di ko seetaan te ñu koy wax à ton nom mais complice nga ci loolu. Mhm. parce que pour man euh, c'est par l'inaction des hommes de bien que le mal triomphe liy bonal tey du def rek de. pour man kii taxaw di seetaan moo ci ëpp responsabilité voilà passivité boobu noonu passivité très très très coupable la donc kon ñun ñoo war a jóg exiger li nga xamante ne de nos parce que ce on nos contribuables mhm. béykat ba ca Fimela jaaykat bi ci naaj bu tàng ba ca Sandaga nappkat ba ca Gendar bi ñu ñoo dajale dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm maire bi yeewu quatre heures du matin di waas jën pour am dara jaaykatu caaf bi de seen yëpp def gafaka muy l'argent du contribuable nit fekk koo lekk te di nelaw. mais Pa Moussa sénégalais yi sonn nañu. trop fatigué balaa nga koy xam rek nga dem yóbbu sa doom wala sa ñees wala sa kenn école trop trop yóbbu ko école da ngay gis ne les parents yàlla na leen yàlla fay suñu waajur yi ñu ngi mm. def lu ñu mën mais wax sénégalais yi sonn nañu nga ndox ndox amu fa ndox dëkk boo xamante ne ndox bu ñu naan waxuma la ay courant rek loolu del ndox au moment boobu noonu ngay gis nit jël dix millions pour jëndi clé USB pour pour voir des des des de Sonko te am na ñoo xamante ne ba léegi pour ñu mucc dañ leen di teg ci sareet. mais am na xale yoo xam ne depuis démb ba école ubbee ba léegi jàngiwuñu parce que seen waajur yi ñu ngi kolo kolo pour mën a am ne serait-ce que inscription donc fu ñu tuuti n'en parlons pas da ngay gis ay prof ay parents nga xam ne ñii ñi ngi dox mais seen xel bi sax nekku fi kon degré de, de, de souffrance des Sénégalais j'espère que suñu autorité ñi ngi rendre compte que ni ils se rendent compte que les Sénégalais souffrent Sénégalais ñoo ak seen ngor rek te suuf kanam nag borom a koy fajal boppam waaw ah, benn moment ñoom muñ leen leen bàyyi xiifal la ba élection ba jot ñu ñëw andi ay saaku ceeb ak saako diwlin da ngay financement waaw ah, sa xaalis la jël la sa mbokk jigéen mais boo duggee ci bañ gàcce gi xamal ne les cinq prochaines années seront décisives ci sa mais je pense que sénégalais nag yeewu nañ ci. xam nañ ko moo tax ma ne la. je suis optimiste wala joxe lekk de. ñoo ko moom xam nañ ne ñoo ko moom. mais buñ duggee ci mbañ gàcce gi moom nañ fexe rek ba système bii nii moom la fi jugee mhm. parce que baaxut ndax ñoom situation bi ñuy dund bu système bi baaxoon dina dem donc kon ku dugg ci bañ gàcce gi yow xamal ne yow jour boobu noonu acte de responsabilité bi ngay def mën na génn Sénégalais ci sous développement. d'accord dafa mel ni temps bi jeex na tàkk tàkk tàkk euh, ma bàyyi la nga tàggatoo Pa Moussa. on est à ma xool bonne heure il fait quelle heure il est 18 heures 2 minutes. donc ma bàyyi nga tàggatoo ñi nga xam ne ñu doon seetaan. en tout cas c'était un plaisir. Euh, d'échanger euh, yi amoon